poste bii nga xam ne tey jii mooy poste bu gën a rëy Sénégal di alimenter Parcelles di alimenter pikin di alimenter euh, euh, Sicap di alimenter Guédiawaye Sacré-Cœur HLM donc tey jii nii bu ma amee ndox bi dañu obligé ñu taxawal ko nuñ ko taxawalee nag lu tax population bu yëguñ dara parce que depuis boobu ay góor ak jigéen ñu ngi nii taxaw équipe bi ñoo mobiliser wu fexe ba courant bi bañ a ñàkk loolu nag lu muy wone mooy que ni tey jii nii suñu système électrique bi yegg na fu nga xam ne tollootuñ fuy benn benn installation di panne rek ñuy wax ne mënatuñu jox courant bi ndaxte am nañ installation bu panne donc dëgëral nañ ko ba mu dëgëree ba nga xam ne chaque fois bu ñu amee benn installation bu panne am na beneen bu ko mun a yollu parce que war ngeen mun a nangu ne post bu gën a mag si Sénégal panne te clients yi yëguñ dara ça veut dire que loolu suñu système électrique bi wax dëgg yàlla am na léegi ndëgërlaay boo xam ne war nañ mun a taxaw pour faire face gis ngeen ne am na benn pompe mu ngi fii nii di di daw pompe bu cent cinquante mètres cube bu heure léegi dinañ installé waat yeneen ñaari pompe yu nga xam ne aussi bu si nekk dina nekk cent cinquante mètres bu heure su ko defee ndox mi dinañ ko mun a yóbbu ak li nga xam ne aussi mooy jógee zone de captage continuer di ñëw dinañ fexe ba mun a dootul mun a dugg si suñu installation yi ndaxte pompe yi ñu fi teg ñetti pompe yi am nañ doole doole boo xam ne dinañ mun a fexe ba ndox mi du dugg du dajaloo comme sa léegi dootul mun a empêcher poste bi mu dox nu mu war a dox dañu bëggoon a avertir rek suñu client yi ndaxte xam nañ ne jamono boobu am nañ courant te xamuñu woon euh, ndox mi ñaata temps lay diire moo tax ñu génne communiqué bi pour avertir client yi mais bu ngeen ko seetloo client yu bari yu ko dégg ak zone yu bari yu ñu waxoon ne xëj na dinañ fa couper couper fu ñu fa ndaxte équipe yi wax dëgg yàlla def nañ seen kéemtalaay kattan pour mun a jox courant bi ñëpp ñu nga xam ne ñoo ko soxla woon surtout si guddi gi.